ñu ngi leen siyaare bu baax a baax euh, CLVBTS mooy votel Bachir campagne en ligne votel Bachiru toroxal système bi ak lépp lu tax ci ñoom wax ci tey maa ngi koy adressé suma nijaay suma nijaay Diop mbaa yaa ngi ci jàmm sa jarbaat mooy wax ak yow déglu ma bu baax a baax a baax suñu réew mi dañ ko jëloon teg ko ci ay loxo yoo xam ne loxo yu yu ñu yaakaar ne loxo yu set la yu mën a jël jëmale réew mi kanam ndekete loxo yu tilim la yoo xam ne day def loo réew mi ginnaaw ndax dañuy xool lépp loo xam ni rogalaat na pour war a jëm ci askan wi jariñ leen ñu sëgg ko ñoo ñu sëgg ca ñoo seeni ñooñ muucc ko ba mu jeex askan wi dëkkee naan am potite ñi nga xam ni ñooy dëkkee nekk ci ker bàyyi askan wi ci aw naaj Sénégal dañ koo tegoon ci loxo yoo xam ni dañoo yaakaaroon ni dañu leen di euh, mettre en sécurité ñoom dañu nekk ci sécurité seen askan bàyyi seen askan ci insécurité boo xam ni bu matale la ñoom dañu nekk ci jàmm bàyyi seen askan ñu nekk ci fitna su fekkee ne sama nijaay njaaxum gi ak laxur gi moo lim yépp bëgg nga ñu seppee ko ci ay loxo yóbbu Sénégal ci yeneen loxo yoo xam ne loxo yu weex tàll la euh, xamal ni jëlaat aw kart di ko sànnilaat ñi ñu teg coono yu metti yi ak xat-xat yi njaaxum gi yépp nag sama nijaay système bi moo ñu ko teg kon soo bëggee sénégalais yi sa sa avenir réew sa ndawi réew am jàmm ëllëg am teraanga ëllëg leen neex ci seen réew ñu teg ci seen ba teg ci seen loxo na nga jël saw carte nga xañ ko système bu bon bii ñu andil musiba yi yépp ci suñu réew te dënk ko koo xam ne borom loxo yu set a la sama nijaay borom loxo yu set jëlal saw carte nga dénk ko ko te xam ni boo ko ko dénkee sam réew ëllëg sam réew ci san sa ndawi ëllëg dinañ am jàmm sa ndaw yi ëllëg dinañ am xëy sa ndawi ëllëg dinañ nekk ndaw yoo xam ni ndaw yu waa Afrique di tiitaroo la kon sama nijaay na nga sensibiliser wu na nga euh, engagé wu nga sensibiliser képp koo xam ne sa njaboot la ak képp koo xam ne ku la dégg la képp koo xam ne sa xarit la nga yeggee ko wax ji nga conseillé ko mu gedd los luy système bi ak kuy ñoñuñ système bi bañ leen sànni aw kart mukk mukk mukk mukk mukk te nga xam ni bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk mais xeex système bu bon bi nga xam ni lépp luy ak laxu Sénégal luy lëndëm lëndëm Sénégal ñoo ko fi andi euh, farata la bëgg sa réew ci jaamu yàlla bokk mais xeex système boobu farata la kon nañ ànd maase xeex système bu bon bi si borom loxo yi tilim yi ñi nga xam ni amuñu benn ambition lu dul ci seen bopp fépp fu ñu tëgg seen bopp lañ fa sëggal ñu mel ni weñ fu tooy ñu dal fu tooy luñ fa dal mukk loolu maase xeex leen ba ñu jiite ci senegal lu toll ni fepp suuf sama nijaay nañ ko ànd maase def man ak yow ak képp ko war a sensibiliser asalaamaaleykum